asalaamaaleykum mbokk internet ci asalaamaaleykum yéen ñi safoo 5 TV ta di ko seetaan dal leen ak jàmm si seen site bu mag bi leen jox des informations en temps dañuy daal di dikk nag ci actualité du jour dañ koy tàmbalee ak ki xam ne mooy Tyco Tyco nag nekk benn tatoueur boo xam ne moom wàllum tatouage rek mooy liggéeyam moom Tyco nag dañoo gis mu génn def benn interview ñu laaj ko lan moo waral euh, tatouage bi waaye moom nee na li ko gën a neex buy tatoué partie intime yi xam ne jigéen moom la gën a soxla moom lay am envie ñu nekk Tyco am nga jabar ba am ay doom mu ne waaw am naa ñaari jabar am ay doom waaye sama liggéey la te xale bu jigéen bu ñëw jox ma arwaam dinaa la ko tatuwel moo xam nag la neex si sa arwa moo xam fu la neex tamit si sa la koy tatuwel ba mu neex la rek ak liggéeyam comme xale yu jigéen ñi ñoo yor seen yaram xool seen yaram fi ci fi leen gën a da leen a moom moom moom nag ñu gën koo xam ci influenceur boo xam ne tout temps dañuy gis si nabam mu nekk ay jabaram waaye gars yi di wax ay wax yi salte wax yu teggi ne dañuy gis sax parfois mu nag aaw bee gën a neex wala ñaareel bee gën a saf moom Tito nag li metti sénégalais yi bañ na lan moo waral Tito ñu bàyyi ko ci lu ko neex barki démb dañoo gis benn audio bu fuité waaye moom Tito sax moo ko posté si sinapam nekk ak xam ne moo di jabaram kenn xamul nag aaw bi la kenn xamul ñaareel bi mu daal di nekk ñoom ay soxnaam di leen laaj ma dugal wala bu mu dugg man ne ma roof ka ci wala bu ma roof ñu gis na nag sénégalais yi ñoo ko commencé woon naqarlu nee nañ Tito mi ngi tatoué d'accord liggéeyam lay def waaye nag mi ngi a la jigéen doom la jigéen lépp la dafa war a am kersa li xam ne mooy jigéen ñi buy sekk ak jabaram am na droit nekk moom fu ko neex waaye yoonu sénégalais yi nekku ci dajee actualité ak ki xam ne mooy Adji Sarr Ousmane Sonko ginnaaw démb bi ñu taxawee devant le ñoom ñaar nag nekkeew fa du dul dàggasante bu metti am ko Adji Sarr indi ko Sonko ñoom ñaar nag kii di Adji Sarr sax dem na ba wax ne Ousmane Sonko dakaa daal juróomi yoon kañ moom Ousmane Sonko nee na musul laal Adji Sarr musu koo jege Adji nag nee ko yaa tëddee tey yaa ma tëjee suba ndaxte chaque jour dañ ko daan nekk muy neex muy neex un jour tey nag ma dem ba bëggatuma rek nga ne ma dooma bàyyi nee na nag Adji Sarr ci la ko Ousmane Sonko daal di sàkku daal di koy violé comme que Adji Sarr ñu ko mënee comprendre maanaam Ousmane Sonko tëddee na ko benn yoon tëddee ko ñaari yoon tëddee ko ñetti yoon ba ñeenti yoon ba juróom yoon jërë ngeen jëf fi yàlla woon moo nekkoon ci côté voile